xam ne mbër yi ay mbokk lañ parce que ñun ñooy mbër yi ñooy mayante xaalis waaw tey Bébé Saloum bëreeg beneen mbër kooku dina am xaalis moom moom xaalis mhm. donc tey nag neex ak naqari moom mu ànd mhm. xam nga tey dafa wax benn wax bu am solo Babacar mooy mooy bu fekkonte ne mbër yi kenn am na ci problème ñoom ñëpp ñu jóg wax na sànq bu tudd na branlo mais branlo waaw mooy loxo bu loxo bu gudd xam nga tey gel boobu bu amee branlo ba mën a def li ba taxaw di bàkku mbër yi ko yi nekk seen i mag nekk làmb ji mhm. woow gel boobu waru leen ëpp ci dëkk bi déedéet loolu mu manta ne ak lu mën a xew loolu mënul nekk gel boobu lu mu am am branlo mënul ëpp noonu branlo classe génération ñoom Gris Bordeaux yooyu noonu tey yàlla may na leen mhm. xam naa fi ñu toll parce que am na fu ma àggoon ci làmb nga waaw Je ne pas mais de fil donc li de di hmm. man dama di soñ côté hmm. parce que mon bu yoré micro yi di non non non war nañu bu ba ñu jël téléphone mënul def comme ni hmm. mais mën nañu téléphone wax mbëri ñu ñu mànkoo parce que tey demoon nañu fi ba euh, naan làmb ji agression bi xeex bi. Mhm. yàqate bi dugg na fii mais football da ngay gis match de football. même Europe sax da koy gis. grand salle doguma la làmb ji football moo fi rey ay moo tax ay dee fi stade Demba Diop. stade Demba Diop. ñu tëj stade ba. ci ci defe naa booba ba tey lañ mujjee dugg ci stade ba. dëgg la match nawetaan nekkul nawetaan sax de maanaam. Wakaam la woon stade de Mbour ñoo woon final xaw moom waaw. dëgg la léegi nag am na am na nag loolu amagu ci yàlla bu mu am ñun nag bëgguñu benn sport violence bëgguñu hmm. ma violence moom dañ ko condamné. dëgg la ak boor bu mu mën a jógee. Hmm. waaye rek pour que ni wax leen ne lamb moom sax jir ka daa nekk comme rek des fois dañ koy bëgg a dénigrer am ñoo xam ne nii daggu ma la de c'est dafa nekk point boo xam ne du am solo la dafa am ñoo hmm. xam dañuy bëgg a dénigrer xam nga toog seen i jàngam naa parce que si parce que làmb di làmb laa làmb te làmb ay boroomi xam-xam ci ne ay cadre yu mag hmm. yu yeewoo ci ne ñu xam li ñuy def dëgg la yaa ngi dégg parce que nit ki nga xam dafa jóge ci zéro hmm. fexe ba doon dara hmm. kooku yaakaar naa ne booy wër royukaay war nga mën a royi kooku te làmb yow xam nga bu baax li ma wax Bébé Saloum xam na ko dëgg la yaa ngi may dégg ku ci ne ci làmb ah ba ngay départ ñu ci bëri ñu ci ëpp ba ñuy départ ci zéro la ñuy départ dëgg la tey yaakaar naa yàlla dimbali na leen te ku amul xel xamoo nooy gérer sa àddina ak sa vie loolu doo ko mën a def pour ma dolli la ci loolu nga continuer. waaw parce que mbër yi xëy na peut-être ngemb yi ñuy ngemb dóorante bi ñuy dóorante. waaw galaaj yi ñuy takk affaire yooyu moo feeñ ci télé bi. Mhm. mais kër ñoom ñooñu koy wax noonu. Mhm. koo ci gis am nga néeg boo xam ne sa kër. <laughs> boo ko ubbee di nga fa gis lu duy saafara ak butéel. Hmm? ah mais c'est vrai. di woo ay sëriñ ut sa néeg dugal leen fa tëj leen ñu dugal xal ba làmb nag culture la waaw moo tax mbëri di takkoo ko sutekoo ko fecce ki defal ki mhm. culture la culture la aada la boo xam ne mu ne am na culture am na culture làmb mhm. suñu sport la boo xam ne suñu cosaan la ñun mhm. làmb dóor fan nga koy gis feneen Sénégal rek gisoo ko fa ay ay boxe ak yooyu Europe seen cosaan la waa dañ ko jëggaani ñun mais dañ ko jégaani mais lamb ñun ñoo ko moom ñun hmm, football dañ ko ah. jégaani boxe dañ ko jégaani basket noonu basket noonu sport yooyu yëpp dañ ko jégaani mais lamb ñun ñoo ko moom hmm. léegi bu ñu ko moomee war ko defal au lieu ñu defar ko bëgg a taxaw di ko yàq loolu loolu loolu loolu baaxul quoi. ñu mel ni bébé Saloum bu ñu fi nekkee xam naa. du sotti wala ku bëgg dem dëgg siiw benn làmb nag du yëngu Babacar. waaw loolu tamit dëgg la. benn làmb du mu am ñu koy dimbali nag euh, il faut mu mhm. ko war a mën nañu ko war a mën a dimbali. parce que mhm. njëriñ li bu ñëwee. Mhm. ñëpp koy bokk. parce que suñuy doom ñoo fi nekk suñuy jarbaat. waaw ñoo fi nekk actuellement nii di bëri. di bëri te nag yaakaar naa boo nekkee ci dara bëggante ñi lay wutu da nga war a bëgg ñu réussir moom lañ leen yéene. Mm-hmm. te am na ay xale yoo xam ne ñaata licencié moo fi am. bari na bari na. Mm-hmm. ñenn ñi peut-être liggéeyatuñu. ñu ngi mm-hmm. topp làmba ji yaakaar ci làmba ji. am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey boole ko ak làmba ji. mais loolu noonu dañu leen war a encourager jàppale leen soutenir leen ba tey làmb gën a dem ci kanam. làmb war na jóge Sénégal fii di dem sax ñu koy tëgg Europe. war na mën a nekk parce que immigré yi nekk Europe bari na ay sénégalais. war nañ leen dem tëggal ay làmb foofu. ñoom ñu dagg bi jóge ci yeneen pays ñëw. ñëw di ko seetaan ci benn France wala ñu daji Espagne wala ñëw di ko seetaan. loolu yëpp war na mën a nekk ci làmb. Babacar làmb ji am na solo ne ko nit ñi jàppale. moom moo gën li ñuy def nii. parce que damay wax ne. ñaata xel la ñuy bëri par ay deuxième combat ñaata komba mooy am grand komba ay dix ay petit komba mhm. Babacar liggéey amul ci dëkk bi Babacar. ah. waaw bari nañu ko ñàkk na mais la preuve xale yaa ngi jël gaal yi di dem. lay dëgg te xale yooyu jël gaal yi dem nekkul ay mbër yu ci bokk. ay mbër ah mbër yu ma xam. waaye léegi Babacar nag bu ñu defaree làmb ji ba mbër bu nekk xale yu ndaw yooyu mën a bëre ñetti combat ci année bi am deux cent mille mhm. nekkul ñaata six cent mille mbër yi dem ci gaal yi nga cee dimbali sa ay mbokk mhm. léegi nag bu la yàlla dimbalee ba nga dépassé foofu noonu di bëy fayu yenn kase yi mhm. mais dafay gën a baax mais te làmb bu ñu ko